tey RFM encore RFM encore TFM RFM RFM TFM chaque jour rek ñooy jël euh, ñooy créer peut-être que dafa mel ni instrument lañu wala wala wala ñooy bëgg a jël préparation màggal def ko thème d'actualité wala jël màggal bi ak Covid 19 def ko thème d'actualité te defe naa loolu euh, comme ni ñu ko waxee woon rek. ñun taalibe yi ndigal la ñuy déglu te benn ndigal la fi am muy xalif général des mourides euh, bu nekkee nag ab murit nga jàppee sa bopp wala nga am woyat yi bu toll ni dem devant un rajo wala beneen télévision am ñu lay laaj si màggal gi nga ne yow doo màggali ah murit nga waaye doo màggali loolu sa problème yow la engagé kooku ki ma koy waxal moo xam na ko maître El Hadj la moo def tey sorti boobu euh, euh, même permettre indiwaat le débat si màggal gi ak Covid 19 si table bi te def naa loolu bu dee taalibe nga ngay jëfe ndigal euh, war ngaa mën a xaar ndigal li jëfe ndigal li ak ni ko sëñ bi diglee euh, maître El Hadj Diouf kon kon bu nekkee ne moom li mu déclaré ne moom ab taalibe la waaye man murit laa waaye waaye jooju moo tax ñu koy tontu. du moom murit la dane man murit laa waaye boobu loo tax ñu koy toon parce que boo xoon du ma màggal si on s'en fout mais El Hadji Diouf mu màggal seek Macky Sall màggal seek ñu ñàkk màggal si ça nous fait ni chaud ni du ñu teree màggal ñu teree sant sëriñ bi du ñu teree bés bernde si nit ñi kon def naa ne Touba amut ku muy xaar si ku war a màggal si ak ku màggal si wut waaw ñëw màggal si ku ñëw màggal si sa njëriñ la da si yokkute ndax sant le sëriñ Touba si li ko yàlla suñu borom defal la kon kooku si yow lay jëriñ jëriñut Touba jëriñut les Mourides jëriñut kenn képp ku ñëw màggal si rek sa jëriñ la kon maître El Hadj yow nga màggal si ak nga ñàkk a màggal si kooku sa business la euh, ki te déclare un Mouride nga ne Mouride nga euh, waaye duma màggal si waaye bi nag mooy suñu problème Mouride nga màggal si woo loolu sa problème la gere ko. jarul nga koy mettre actualité jarul nga koy euh, nga koy nga koy teg si table yi parce que on comprend ces langages xam nga dañu toll si monde boo xam ne euh, ñun ñun ñun ñun ñun ay xale lañ waaye gënu leen ñoo jàng euh, ba bu ngeen jëlee kàddu sax yëkkati ko am fu ngeen ko jëmee mën nañ jël message boobu ñun mën nañ ko décortiquer mën lañ leen wax ne lan ngeen si jublu parce que bu nekkee si média bi aussi ñoom li ñu jublu si poser question ba maître El Hadj Diouf ba ne man murit laa waaye waaye boobu mu si wax euh, du moom la concerné parce que val euh, représenté wu dara lu am valeur si yoonu murit lu tax moom màgg ñàkk màggal seem ak màggal seem am effet si ñun moom mu màggal si ak mu ñàkk a màggal si amul effet si ñun président Macky Sall màggal si ak ñàkk màggal si amul effet si ñun premier ministre màggal si ak ñàkk a màggal si amul effet si ñun ndax li ñu war a def dañ koy def bu ñu waree màggal dañuy màggal ki nga xam ne moo fi nekk muy xalif général des mourides kon euh, du question opinion mais mais message bi si ginnaaw message bi ci ginnaaw dafa am lu muy wax dafa am am am tey gis nga boo xoolee bi mu defee sortie bi euh, journal yu bari dañ ko reprendre ah maître El Hadji nee na man je suis mouride mais je veux pas màgg mais mais mais gilee mouride lan la représenté si yoonu mouride lan ban valeur la am ban valeur la ajouté si yoonu mouride ban apport la indi si yoonu mouride kon kon kon defe naa amul amuluñu valeur amul lu mu ajouté si yoonu mouride amul benn njëriñ boo xam ne tey dana ko yokkal na ko yoonu mouride comme moom mooy jëriñoo moo yoon wi et que on le représente sentiruñu sax ne xamuñu woon ne sax si yoonu murit la bokk d'ailleurs Maître El Hadj Diouf ñun xamuñu woon sax ne yoonu murit la bokk xamuñu woon sax murit la ba tax moom ñàkk a màggal si ak màggal si am effet bañ koy def si journal yi c'est pas la peine jaru ko euh, li ma waxoon rek ñun murit nañ am fulla bés bi bu jotee kii war a wax bu waxee fu bu nee nañ màggal yi fu mu euh, doli sax bu ko waxee ñu màggali fa su ne woon Amérique la ñuy màggalee ji ñëpp Amérique la ñuy dem màggalee ji kon kooku kooku defe naa ne di journal yi di si bindaat euh, encore gis nañ sorti boo xam ne euh, euh, gars yi ñu ngi koy def def nañ ko si comité de suivi du Covid 19 def nañ seen sortie tàmbalee jël le message que regroupement nangam comme li ma leen waxoon au début rek sëriñ bi moom li muy décidé bu waxtu wi jotee dana ko décidé nam koy defee moo ko xam la mu la mu la la la muy wax it nam koy waxee kenn du ko dicté lu mu wax noonu la. waaw lu mu lu sëriñ bi wax rek noonu la kooku ça dépend pas de l'état du Sénégal y a pas un engagement ou la responsabilité de l'état du Sénégal bu mën a contrôler lan la mouridisme di doxee lu war a contrôler lan mooy décision xalifa yi lan lu war a mu mën a contrôler nan la murid di doxee kooku moom def naa yàlla bind bindagul si kaw suuf lu mën a contrôler taalibe yi ak murid yi ak xalifa bi ak yoonu murit na mu war a doxee ak nu mu war doxee kooku moom moom dama bëgg moom dafa war di leer message boobu dafa war a leer si képp kuy gouverner ak képp koo xam ne euh, da nga yor un responsabilité si état Sénégal wala nga yor responsabilité boo xam dañ naan danga koo yor ndax ndax ndax gënuñu ñoo jàng parce que boo xoolee liñ naan dafa am euh, la philosophie politique bu am philosophie politique xam nga philosophie politique buñ koy wax. politicien un politicien si ñoom ni ñu ko jàngee ak ni ñuy gëmee politique mooy ñoom seen intérêt rek moo moo mooy taxaw intérêt politicien moo taxaw ndax booy xool am na benn livre bu tudd euh, bu bu bu ba nga xam ne idéologie politique la euh, prince lañ ko tuddee mais boo xoolee seen idéologie mooy saa si seen intérêt taxawee. ñoom seen intérêt la ñuy défendre maanaam popul ñi doomu aadama représenté wu dara population représenté wu dara un peuple euh, benn communauté représent religieux représenté wu dara te loolu fokk muy nekk suñu bopp yi ñu koy xam parce que mënuñu jàng ni ñoom am xam-xam bi ñu am mën a comprendre idéologie politique bi ñuy doxal ak ak ak ak pensée politique euh, pensée politique bi ak la philosophie politique ba pare bëgg ñoom ñuy toog suñu kaw di ñu ko di ñu ko dëbbee loolu mënul nekk parce que dañu nekk ay taalibe rek gëm sëriñ bi Euh, jël suñu pensée politique ñu yemale ko sëñ Touba suñu idéologie politique yem si sëñ Touba ak yoonu murit mais nekkul ne ñàkk ñoo ñàkk xam ñàkk du ñàkk xam-xamu xam nan la politique di doxee wala nan la politiciens yi di ñu amee seen pensée politique boobu kon euh, dañu leen di comprendre ne seen i langage c'est codé euh, seen seen lépp lu ñu def géopolitique la pour seen intérêt bopp ak lu leen di fal ak li leen di koy gën a téye si pouvoir loolu rek la ki si gën di wax ne murit laa am na si ñuy déclarer seen murit te murit googu déclaré wuñ ko lu xam nañ ne la communité murit moo ëpp doole mooy communité boo xam ne boo buggee giite Sénégal tey danga siy bokk soo bëggee saf xorom wala nga am guu da nga naan murit laa ñu gis la ngay sukk di raam ñu déclaré sa murit kon Sénégal da ngay gis ne politiciens yi ngay dégg lépp ñu ut buzz wala ñu ut personnalité ils sa déclarent des murit léegi nag murit googu ndax da nga koy dund wala dundoo ko kooku yow la engagé waaw yow la engagé lépp nag loo xam ne lu jëm si màggal gi moom politicien man murit laa man nangam laa man nangam laa munoo wax a wax a wax ba ki ka war a ki ba nit ñi déglu la wala li ngay wax am valeur si ñun ñun taalibe yi koo mën di doon si réew mi ak loo mën di représenter ak xam-xam boo mën di jàng mënoo wax lu am valeur wala lu am lu am lu am njëriñ wala lu ñu déglu ñun taalibe sëñ Tuubaa kenn la ñuy déglu muy xalifa bi lu mu wax moom la lu mu waxut du noonu su yoon nekkul si expert su yoon nekkul si boroomi xam-xam su yoon nekkul si xalaatu keneen kooku dafa war a leer. dafa war a leer dafa a leer loolu dafa war a leer si seeni pexe leer si seeni i sorti leer si seen bëgg-bëz leer si leer si seeni i plan màggal gi dem si journal yi ñuy bind lobby yi di bind organisme yi bind dama xamul ay organisme 3D organisme trois d nga xam ne vous représentez les les ay ay organismes yoo xam ne ils représentent des lesbiennes ils représentent de gays human rights ay organisme yoo xam ne yow yow yow dañ lay jox xaalis ah pour que ay ay ay lay jox xaalis pour que nga yow nga mën si fayeeku jël ay nit ñuy fayeeku nga mën a bëgg am kàddu si yoonu murit mën a bëgg am kàddu si suñu suñu suñu màggal gi bëgg am kàddu suñu ñun suñu risque suñu life suñu lan c'est pas votre problème quand même vous êtes des organismes yoo xam ne dañ leen a financé yem leen seen organisme opinion amu fi yoonu murit amul opinion seen amu leen opinion si suñu màggal amu leen opinion si lu ñu gëm amu leen opinion si nun nan la ñuy dundee waaw murid nag ba si ku si ñàkk fay de di dégg réclame que t'es un murid comme ni ko El Hadj Diouf waxee man murid laa waaye na fexe ba moom tamit mu bind si testament boobu man murid laa mais fii màggal su ma fii ak Covid 19 dee bu jeex su ma fi dee bu ma kenn suul Touba waaw demoo Touba d' accord waaye bu fi dee boo fi dee bu fi ñëw Touba de bu la fi kenn andi Touba mu leer waaw parce que lu lu lu ku jaaxle ñëw tuuba ku deelee andi Touba ku ku ku feebar andi ku ku ku ñu war a suuli nga ne Touba bu deseel sa digganteek yàlla ak suñu boroom ñu ne nañ yóbbu tuuba te booy dund toog fi nga toog ni ko sëñ laa doon waxee mais ku siy dund toog journaliste jox la rajo ñu climatiser ko buñ la waxee ne non on devait confirmer Touba Touba buñ ko buñ confiner Touba parce que Touba fa la affaire bi nekk fa la feebar bi nekk c' est honteux en tant que mouride qui se déclare un mouride El Hadj Maître El Hadj nga taxaw non Touba dañ ko doon euh, kii parce que non non non non non tey tey tey tey tey tey képp ku fi deelee ah ku si dee sax laa la wax ne donte ay ay service d'hygiène ñoo lay wala ay ambulance dañoo dañ naan nañ ko yóbbu Touba mais yow yow ti oses que nga nga toog si RFM ne man murit laa waaye duma ma màggali mais na nga fexe baxaat ne murit nga waaye du ma màggali waaye murit laa fekk Covid 19 di jeex bu fi dee bu ma kenn yóbbu tuuba kooku moom na ko wax moom mu leer waaw mu leer ni ko woon. maanaam murit yi moom bu ñuy dund kuy dund mën a dana dana dana murit buy dund di dem ku ko neex di sangam mais ku ñu jël teg la si jàkk war la suul képp ku ko utal sang ku du sëñ Tuubaa su mën a jóg yar lay ut du ut yat jaasi lay fab mais mais yow yaa ngi toog fi nga toog ah non man murit laa mais mais mais mais souvent je pars pas à Touba pour le màggal quoi mais le sa problème la xamuñu woon ne murit la murit yi xamuñu woon ne sax nga yow murit nga. que ça fait que vous représentez rien amoo amoo looy représenté si yoonu murit sa sa mouridisme ñun xamuñu ko woon ba tey jii bi nga ko waxee lañ soog a xam ne maître El Hadj Diouf yow tu murit tey lañ ko mës a xam tey lañ koy soog a xam yeneen murit yi génn aussi am même position ak même argument boobu di ko défendre da xam ne ab taalibe day yem si ab taalibee gëm sëriñ bi yaakaar ko wóolu ko doyloo ko sama téléphone nag batterie bi dafa dee. waaw ñi ngi sant bu baax tey ziar gars yi ñu waajal màggal gi xéwal yi bëri ñu déglu sëñ Muntaxa mu yàgg fi te wër yàlla na ko fi sëriñ bi jëlee taw féex ak mucc nagaa yi ñëw màggal si bu ko sëñ bi joxee ndigal na xumb te dagan waaw ñu santale ko yàlla bernde yi nag yi gëléem yi lakk yi lépp na ñëw loolu la mooy dëgg ñu bàyyi gars yi nga xam ne ay murid de ay murid de quoi lañ ay tubaab lañ kenn xamul lu ñu doom intérêt dong muy taw ju rëy kenn xamul fu